fois amis chers fidèles internautes de Sénégal set ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant di am mbégte bu baax a baax di leen déwénati encore di leen wax nuyu ci année 2022 bi nga xamante ni dañuy ñaan rek ñu dugg ci jàmm ak salaam fi ma nekk nag ce n'est euh, plus à présenter maa ngi arena bu Dakar Diamniadio tey nag rendez-vous bu mag moo ñu fi indi mooy rendez-vous bi nga xamante ni Youssou ma jigéen Ndour Youssou mari Sène moo ko joxewoon tey nag ñëw nañ du defi parce que wane na lu nekk ci àdduna bi ku feesal euh, fa nga xamante ni mooy Bercy feesal Zénith ak yeneen i yeneen i yeneen i euh, stade euh, kon fii nii feesal ko du problème donc mu mel ne nag li ñu njëkk xamal rek mooy li nga xamante ni mooy ticket online yi moo njëkkoon jeex laata ñu ñu doon jox ticket yi nga xamante ni dañuy jënd chouche bi en tout cas kontaan nañu soirée baa ngi nii mi ngi soog a commencé le temps Pape Cheikh Diallo di wax di présenté ñi nga xamante ni ñoo war a def première partie bi euh, dañuy dugg nank di jël interview man ak Dieye la artiste bu ñu fi gis rek dinañ leen ko wan su ko defee mu waxee ay réaction wam euh, sànq euh, Woz jiitu na ma fi def na fi interview yu bëri macha allah sama rakk ji donc moom tamit dañ koy encouragé waat di ko waxaat bonne fête ba tey donc ba tey dañuy su ko defee li nga xamante ni euh, moom mooy euh, ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu indil leen seen réaction ci bés bu rëy bi nga xamante ni Youssou Mari Sène moo ko woote tubarkàlla ki nga xamante moom mooy l'homme des trois générations lu mu way mu neex lu mu def mu neex yàlla moo ko def si xolu nit ñi te ce ne pas à donner ce n'est pas donné à tout le monde du mois donc dañ koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér suñu borom defal ko ay tawféex defal ko sutura defal ko lépp loo xamante ni rek bëgg na ko en tout cas ñu ngi ko koy euh, ñu ngi ko koy ñu ngi ko koy ñaanal bu baax a baax euh, maa ngi jéggalu sëñ bi mbaa yaa ngi ci jàmm alhamdulilah ñu ñëw fekk la fi nag tey euh, ci li nga nga bokk ci melomaan yi macha allah di bëggee Youssou donc dama lay bàyyi rek nga nuyoo internetu Sénégal 7 yi lay seetaan su ko defee nag ñu nga wax ñu nan nga nar a passé soirée bi tey. Euh, ginnaaw bu ñu sante yàlla ñu julli ci yonent bi di nuyu ñëpp di souhaiter bonne heureuse année à tous les Sénégalais xam dañoo ñëw tey si arena bi pour fêter fête la daal c'est une macha allah c'est une fête macha allah moo tax xam nga uh-huh. coono yi lépp. effectivement en tout cas ñu ngi lay souhaiter bonne et heureuse année et excellente fin de soirée. merci à vous. merci beaucoup alors ba tey nag ñu ngi fi nga xamante ni mooy arena bu Ndakaaru euh, fii nag kenn dootul euh, naatamle li nga xamante ni tey moo ñu fi indi euh, Youssou Madjiguène Ndour moo woote waaye nawoon fa woon rek ki nga xamante ni mooy rakkam di léppam di doomam di Aïda Samb ñëw bokk ci ñi nga xamante ni ñoo presté première partie bi alors Aïda ñu ngi lay nuyu. lay nuyu bu baax. maa a si jàmm bonne et heureuse année. bonne année bonne et heureuse année. tey nga ñëw accompagner ak monsieur. waaw loolu la yàlla dogal. macha allah yàlla ne woon na 2021 bi du jeex te ay décembre ànd ak monsieur. maa la ko wax bokkoon naa ci ñi ko ñaan. gis nga. <laughs> alors merci beaucoup ba tey euh, ñu gis nag accueil bu chaleureux bi nga xamante ni euh, sénégalais yi def nañ ko dafay retourné waar rek ci fi ñu la def ak bëgg bi ñu la bëgg. waaw comme ni may may tout le temps rek man ma sénégalais yi ñoom ñoo ma bëgg parce que lu ma génn même buñ toogee sax dégguñu ma dañuy réclamer ani ayda ani ayda comprendre nga donc loolu bëgg nit moo koy waral. te mbégte boobu ah, nu am si man mbégte bu ko raw man moom laa am si ñoom donc loolu mooy tax à chaque fois buñ tasee rek mu nekk lu neex macha allah ñu kontaan bu baax tey nag lii du ma ne défi la parce que Youssou Ndour wanee na lu ne si àdduna bi 30 000 places fii ci arena c'est la première fois mu am euh, donc euh, lu historique la macha allah waaye ki nga xamante ni mooy roi bi moo ko def bettu woon na le non non bettu ma vraiment bettu ma parce que ku mën a feesal Bercy mën a feesal Bercy je ne pense pas que ne Arena c'est un problème pour feesal. mën nañoo xaar un jour Aïda Samb tam woote. ah ba mu bëri doole incha allah rabi. macha allah alors euh, nga génn benn tube nag comme gisa yombul muy jëkkër sama nekk loo xamante ni ci way bi dañuy gis sensation bi ngay éprouver soo koy way mu mel ne Aïda daal elle est amoureuse. waaw je suis <laughs> waa ah? waaw bu baax a baax. acca lan lan la ñu mën a xaaraat comme loo ñu mën a indilaat incha allah ci 2022. Euh, di wax sénégalais yi rek nañ ma xaar. ci 2022 bi ay décembre ak album bu bees tàkk tàkk tàkk. album boo xamante ne nii bëri na sonorité. Mhm. am na sonorité yu bëree bëree bëri yu si nekk. di leen ñu wax nag sénégalais yëpp ñu ñaanal ma. Mhm. waaw ñu ñaanal ma. yàlla boole ma sama borom kër. ah ba ku ci nekk dem bay weer sa moroom wala di ko weri ci bàkk Seydina Mohamed. wax dëgg yàlla bëgguma sax muy feeñ ci ci ci xëy na dafa tombe dafa tombe tey peut-être ñu toog ma ak moom. en plus xaritam tey du jouer. inter mu inter mu def déplacement Gambie ñëw pour fekke si bés bi li may ñaan nag mooy sénégalais yi maa leen di ñaan ngeen ñaanal ma yàlla sama diggante ak sama borom kër. jàmm ak salaam te dara ba yàqaj suñu diggante ma sëy sëy bi ba mu bëri doole. non ay la tey dafa dafa ñëw ak ak jóge boppam mais ñi nga xamante ni mooy question bu mujj ndax sonn nga nee nañ Gambie am na lu fa nekk secret bi lan la Gambie temps yi xale yi jël nañ Gambie le jii kaay ma wax la nag jëkkëru Gambien surtout sama bos. Ah. ji bàyyi la kat laay bañ mu dugg ba bàyyi la. Eh, merci beaucoup